asalaamaaleykum mbokk jullit yi asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen bu baax a baax a baax baax a baax tey jii nag seen télévision Touba Belel Info TV daa ñëw fii ci Touba dëppoog bés bi nga xamante ne mooy ñaar fukki fan ci weeru Muharram tombeeg le 29 septembre maanaam euh, mu dëppoog bés bi nga xamante ne si la Serigne Touba jóge woon Njaaréem ñibbi si fii nii di Touba te Cheikh Mouhamadou Moustapha taxawaayoon ko taxawaay bu ab solo tey nag mu tombeeg li ñuy wax màggalu Daaru Xuddus une télévision Touba Belel Info TV fas yéene cee dox doxin bu am solo maanaam dafa bëgg a ñëwaat ci historique bu màggal bi maanaam lan moo ko waral ak tamit la ko Cheikh Moustapha santaane woon maanaam dañuy dugg tey jii nii ci yenn mbokk taalib yi nga xamante ne seen seen xam-xam rafetlu nañ ko bu baax baax leen micro leen Cheikh bi ñu ñu ñu ñu taxaw ko xoolaat naka lañ koy màggalee. salaamaaleykum mbokk taalibe yi comme ni ko seen télévision Touba Belel Info TV waxee woon sànq maanaam fas yéene dellu si waat ci màggal gi nga xamante ne mooy màggalu Daaru Xuddus indiwaat li ko waral ak naka lañ ko santaanee ci kaw loolu nag dañ see dalal benn mbokk taalibe ñu koy wax Serigne Mamour Mbaye Serigne Mamour Mbaye ñëpp ràññee xam-xamam te rafetlu ko Serigne Mamour Mbaye ñu bàyyi la nga nuyoo la ak ñu nuyoo rek suñu téléspectateurs yi. alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatulah. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا إذا عاملته وجدته مليا وإذا عاهدته وجدته وفيا قطرة في بحر جوده تملأ الأرض غيا ونسرة بعين رحمته تسير الكافر وليا الجنة لمن أتعه ولا عبدا سريفا والنار لمن عصاه ولا عبدا سريفا قريسيا وقال الله تعالى في كتابه قولا بهيا وتلك الجنة التي نورث لعبادنا من كان تقيا يقواني في الله والعقيدة من يدني leen كتنا nuyu kenn di kontaan baax a baax ci dalal bi nga xam ne nii dalal ngeen ma ko fii asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw sëñ Mamour Mbaye ñu ngi rafetlu nuyoo bi am na solo lool lool lool lool lool léegi bu ko defee rek dañuy jublu ci laaj yi sëñ Mamour Mbaye tey dafa dëppook ñaar fukki fan ci weeru mu xaram moom la ñuy wax ci yoonu murit màggalu Daaru Xuddus mu bëggoon nag nga indiwaatal ñu ñu dëkk màggalu Daaru Xuddus maanaam jóge gi nga xamante ne moom la sëriñ bi jógee njaareem ñëw fii nii loolu ñu bëggoon nga indilaatal ñu ko nu mu gën a gaawee sëriñ Mamour Mbaye alhamdulilah waaw màggal gi moom wax dëgg yàlla maanaam sabab bi dëgg dégg mooy maanaam génn gi nga xam ni sëñ bi génn na ko jamono ci saayir defa ko fi ji nga xamante sëriñ bi dafa nekkoon njaareem dafa nekkoon comme prisonnier koo xamante ne si ñu tubaab bi dañ foofu mënu woon a bañ a dem maanaam mooy bi mu demee ci géej ba ñibbi si maanaam ñu nga xam ne amagul liberté ñu téye ko foofu léegi bi suñ borom defee mu génn jamono ci saahir nag maanaam jële gi nga xam ne moom lañ ko jëlee euh, njaareem indi ko fii ci Touba loolu moo waral bis bi tey boobu nag sëriñ Mour moom la fekk waaye Moussa la jàpp boobaa moo fi représenté sëriñ bi nga xam ne moom sëriñ Moussa dafa desoon Jurbel ñëwul woon Touba ci dencu sëriñ bi dafa desoon ci gouverneur bi foofu léegi mu yabaloon euh, sëriñ Basiru ak ak sëriñ Mouhamadou Diop Dagana ñëw fii Touba daje fekk euh, mbokki ñoom sëriñ Fallou ñu ñu daal di taxawee sëriñ bi nga xam ni sëriñ bi moom nelawee na Jurbel waa sëriñ Moussa mi fi nekkoon jamono yooyu mënul woon a am liberté pour ñu accompagner ko ñëw Touba ndax booba sëriñ bi dañ koo téewoon Touba Jurbel Touba bi ko faa téewoon amu woon liberté totale kon sëriñ Moussa Touba boobu moom la Touba bi di téye foofu amee lu muy moom la koy defaan mu yabal ñooñu ñu ñëw indi sëriñ bi Touba pour waajal ko fi jébbal ko borom loolu mooy bisu sëlaf màggal gi tey jii. ok sëñ Mamour Mbaye tontu bi am na solo lool lool lool ñu ngi koy rafetlu lenn nañu yaakaar naa mm-hmm. bu weesoo loolu dañuy jàll ci tontu bi ci des ci laaj bi ci des laaj bi ci des euh, dañ lay laaj maanaam màggal gi naka la demee ndax sëriñ bee ko santaane wala moo xam ndax euh, Serigne Modou Moustapha moo jël maanaam initiative boppam di ko taxawal loolu nan la demee ak bu dee Serigne bee ko santaane naka la ko santaane woon. Mhm. maanaam sëñ bi laata mu fee jógee ci Saïr dafa am dénkoon mu euh, Modou Moustapha maanaam moom Serigne bi bu fi bàyyeekoo sëñ bi mu Modou Moustapha moom taxawee ko taxawaay boo bu am solo ba pare tam ginnaaw taxawaay booboo tam mu mottali jumaay jee tam moo xam ko ne ko su ma fi jógee boo ma taxawoo taxawoo bi war ak tabax ak defar jumaay jee tam boobaa lépp loo xamante ni si bëgg nga ko rek di nga ko sëñ sëñ bi dénkan yëpp moom sëñ Moussa sëñ Moussa taxawee na loolu kon loolu maanaam ginnaaw sëñ bi moo ko joxe ndigal loolu ba mu taxaw ba pare kon man na ni sëñ bi digle woon na itam ñu màggal ko ak sëñ Mourou Moussa itam ak sëñ Tuubaa fi ci jamono ak ci xam-xam ak li liggéey itam maanaam même ci kenn digle woon sax bu génnee jamono itam war na ci taalibe murid yëpp bis bi nga xam ne ci la jóge ci seen bët ci saayir ñuy màggal bis boobu maanaam bis bi man ni sëñ sëñ bi digle na ko sëñ Mourou Moussa itam digle na ko ba moo tax tey yi sore sori ñëw ngir feeñal yéeneem sëñ bi digle na ko sëñ bi Moussa mi xam ne moo ko fi toogal jamono itam digle na ko ñu màggal ko baax a baax a baax a baax. ok sëñ Mamour Mbaye kon fii am na solo lool lool sax waaw bu weesoo loolu itam dañuy jàll ci euh, laaj bi ci topp. laaj bi ci nag dañ la dañoo bëgg nga xamal ñu maanaam màggal gi bu naka la ab taalibe war a taxawee maam màggal gi da ngay dégg sax yenn màggal yi ñu yàlla màggalu yor gi màggalu guddi la lu ni kasu rajab ak bii gi it bëgg nañ nga wax gi ban waxtu la ak bu ñëwee ab taalibe moom naka la ci naka war a parce bëri waan na ñëw tey ji boo xoolee mbooloo fu ne boo xoolee Touba fépp bëri naka la ab taalibe war a taxawee mooy ki nga xamante ne moo ko may xuriyatu taabir moom mu mën a taxaw di wax may ko tam maanaam diine lislaam ji fu julli jote mu mën a taxaw julli mu xam ne ki ko doon liggéeyal loolu lépp bis bii tey jii la ab liggéeyam matoon ba mu jóge fi dem moo tax tam màggal gi maanaam berle ci kër gi am na solo waaye likkaat itam liiraat histoire sëriñ bi dundaa sëriñ bu baax a baax a baax baax na ci bépp taal bi comme ni ngeen ko defee dugg ci dëkk bi xoolaat sëriñ bi xam ne ki nga xam ne moo liggéey nii lépp may ñu ni lépp bis bii tey jii la fi borom itam war na ci bépp taalibe daal bu maanaam ci mu fexee gëstu heure bi maanaam ci yoor yoor gi bu baax ba jëm cee jàng alxuraan jàng xasida ñaanal sëriñ bi ci boppam xam ne lii ñu am lépp moom moo ko defal te gaara daal wax dëgg yàlla ku fi ñëw war ngaa yëg ni ki li maanaam bu kenn ku ci nekk sax sa mbokk bu fi bàyyi koo ba bis ba desiwaatee maanaam li nga yëg ni tey jii am na koo xamante ne si ni jógewu na fi sa mbokk la sëriñ bi nag moom moo gën ci ñun ak mbokk ak lu mu mën di doon kon bis bi tey jii maanaam bisu bis bisub yërmande la bés boo xamante ne ku dikk itam war ngaa sa xel war naa demaat baax a baax a baax a baax ci sëriñ bi wax dëgg yàlla bis bi daal moo bés gënu koo màgg ci taarixu yoonu murit mhm. waaw tey sëñ Mamour Mbaye tontu yi euh, am na solo lool lool sax wax dëgg fa yàlla ñu bu baax a baax a baax sa taxawaay ak tontu yi laaj bi ñuy mujjee rek euh, mooy dañ lay laaj maam Cheikh Moustapha moom dundam maam bi ko moom dundam moom naka la naka la naka la ko continuer naka la ko yeggalee parce que saayir ma gisatuñ ko woon sëriñ bi maam ci saayir gisatuñ ko woon sëriñ bi mm-hmm. mais Cheikh Moustapha moom am na taxawaay bu muy taxawaay mm-hmm. parce que ñu diitul sëriñ bi rek ñëpp xam nañ ne xel yi dina sori nga Cheikh Moustapha dégg nañ ne a yaatoo rek. Cheikh moom mm-hmm. mm-hmm. maa ngi kontaan ba ci question waaw Cheikh Mouhamed Moustapha bi fi sëriñ bi di jógee ci saxiir booba moom la fi bàyyee ci yoon wi wax dëgg yàlla booba yoon wi diisoon na trop mu nekk amaana boo xamante ni amaana azima la wafaatu sayx wa huwa saxiirun fi sin maanaam sëriñ bi jóge fii ci jamono ba pare moom ay atam tullul woon noonu kon responsabilité boobu rëy na trop waaye suñ borom moo ko tawfiixal teg ak jiite yoon suñ tubaab boobaa maanaam tànneef ak suñ borom lay doon maanaam suñ Moussa tam wane fi liggéey bu rëy ndax booba sëriñ bi maanaam bi muy doog a booba dafa dafa da Touba daw fi yàgg Jurbel la daa nekk day jékki-jékki am na benn saamu boo xam ni moo daan ñëw fi Touba bi sëriñ bi moom moo leen di wan sëriñ bi te sëriñ bi nekkee ñu mën a gisee moom kon sëriñ bi sancan na Touba waaye jot fi woon maanaam euh, goroon na ko waaye jot fi woon a dëkk maanaam kon sëriñ Moussa loolu lépp moom moo matali maanaam sanc gi ak goraat Touba ba ba tegaat ko ci yoon ba tax Touba mel ni mu mel tey jii waaye sëriñ bi moom maanaam dafa nekkoon place boo xam ne naan xamoon na ko tam bëggoon na ko tam waaye bi mu fi jóge amoon na mébétu Touba meloon nii waaye loolu lépp ci loxoy sëriñ la ko suñu borom sottale te loolu ab taxawaayam ak ak ak ak ak liggéeyam moo tax Touba demee nii ndax boo fekk na sin bi génn jamono saay wax dëgg yàlla sin bi Moussa liggéey na ci loo xamante ne si nii maanaam kawe na képp képp képp maanaam mën nañu daal lépp sin bi bàyyi lan lépp daal matal na ko en la ahsaniment yuram waaw kay sëñ Mamour Mbaye tontu am na solo lool lool lool Touba Belel TV tamit mu ngi lay euh, jaajëfal ci sa taxawaay wax ji am na solo te tontu yi leer na ñu ngi di gërëm bu baax a baax yéen mbokk taalib yi nga xam ne yéen a topp Touba Belel Info TV ci plateforme yi nekk ci internet bi yëpp di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. bisimilah barki borom Touba kon ñu ànd ak sunu mbokku taalib yi Mamadou Fall sëñ Mamadou ñu ngi lay nuyu te di la dalal ci ci Touba Belel Info TV di la bàyyi nga nuyoo askan wi. bisimilah ñu ngi leen di siyaar askan yëpp ñu ngi leen di di leen siyaar ak ñi nga li waral màggal tubaab sin sin mbàkk banu xaas bu sin sax jëri wadan sugu borom wadan sugu waaw akasa kon na ngeen màggal si woon ah nu ngeen dundee màggalu ren gi ah màggal gi taw féex de lépp yàlla yi euh, na xéwal daal bu baax waaye nanu gën a xam ne nag jaamu yàlla doon mën fi dese amul lenn loon fi dese loolu jaamu yàlla na nga gëm xam ne seen tubaab moom doon mën mën fi indi bu ñu ko deful tamit erreur dong la ñuy dëkkee jaamu yàlla nag amul lu leen leen lu ko gën si adduna bi dañu sàkku rek ngi jëm Serigne Touba nanu bàyyi caaxaan gën a gëm yàlla nga xam ne yàlla rek moo fi nekk te moo fi mënu bu ñu ko jaamoo tamit dañuy perte rek Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Seck bi xam nga Alassane Sëñ Mamadou jaajëfal nañ la santaat nañ bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf dëgg siyaar rek bu baax a baax nag wax dëgg yàlla du wàll di leen jégalu. am na solo Serigne Touba daa bëri doole boo moom sa da ngay bëgg da ngay bëgg fànnaaw du dara maanaam yéen a ngi waajal màggal kon noonu la ni waajalee màggal gi 18 safar daanaka yegg si na nag waaw di daanaka yegg si na nag waaye ñu gën a góorgóorlu rek xam ne kanam rek la di dellu gannaaw mukk ak sëñ Tuubaa Mbàkke nag ak yeneen jégalu nag ñun nag ñoo bokk sëñ Tuubaa waaye mënu ñu bëgg réeroo waaye mënu ñu moom dong moo ko am am leneen ak Sëriñ Sidi Mbàkke moom xaas jërëjëf sëñ Tuubaa jërëjëf sant salaamaaleykum suñu yaay booy soxna asu ñu ngi lay dalal ci suñu télé Touba Belel Info di la laaj noo leen dundee màggalu Daaru Xudoos bu ren bi ah xalaat sant yàlla rek di julli ci yonent bi di ñaan suñu borom ñu koy yokk nga ci déwén ak déwén taxawaay bi rafet na rafet ko te it wax dëgg na ko yi ngi jëm suñu Touba bu ñu bu ñu jàkkaarloo jumaa rek la suñu lépp mat ci barke borom Touba. daal suñu yéene mooy ñu doon fas rek. saa ñëwee yàlla may na noonu mën a ñëwee ak tànk yu mën a téye ba jàkkaarloo yéen ci barke borom Touba barke borom Touba. waaw ah, jërëjëf barke borom la bëggoon laaj. jamono ji yéen ni ngeen mag ñi ni ngeen doon dundee. seen seen doom yi maanaam tuut tànk yi. dañoo bàyyi dañoo tegg yoon boobu noonu. looy ñaaxaat xale yu ndaw jigéen ci jamono ju tërënd ji ñu nekk jamono ji. xale yu ndaw yi ñi man li ñaaxaat. di ko tàmbalee ci sama biir kër te te mag ñi di ko doxal mooy xale bu jigéen na góorgóorlu woddu jéggi ndigalu ndeyam ak ndigalu baayam fas yéene jaamu yàlla di julli waxtu yi juróom ni ko say ni ko di defee ba ba foo mën demit dëkk fa mën a dégg déggoo ñooñu yoonu islaam di leen jàngal nag yoonu bi muy alxuraan bi ak arab bi loolu daal la ñuy santaane ñu jàpp dëgër te fas yéene koo ci barke Sëñ Touba ak Thierno. jërëjëf jërëjëf yaay booy sant nañ baax a baax.